dañuy ñëw ci ki nga xam ni mooy Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall di sénégalais bu sénégalais yu bari joxoon bopp di ko bàyyi xel di partager ay vidéom yëkkati ko fu ñu ko gis mu neex a seetaan mu def ko ay yoon yoon sénégalais yu bari jox ko bopp sawar koo lool déglu Pape Djibril Fall tey bi mu taxawee wax ni dama am lu ma bëgg mu mel ni wute na ak sénégalais yu bari gis-gis ci ni nga xam ni noonu la doxalee parce que Pape dafa génn ci télé boo xamante ni bi ñi ngi ko naan tele Youssou Ndour ginnaaw bi mu jógee ci télé yu Ndour dalde samp ndëndëm dalde féete ne moom dafay demal li nga xam ni booy boppam muy lu normal parce que nit ku ne am nga sañ-sañu demal sa bopp dem ak say gis-gis mais li ko nit ñi dut par pardonné pour man mooy Pape Djibril Fall euh, dafa nekkoon koo xam ni dama jàpp ni man analyse ma ki gis-gisam dafa am gis-gis ak analyse yu méngoo ay gis-gisam nit ñi yëg ci moom que ni Pape Djibril Fall mii kat li nga xamante ni bi moom la nit ñi yëg ci moom mooy que ni mook waa Pastef wuute benn yoon xalaat ak gis-gis ay ndawal Pastef di ko partager fu ne jël li nga xamante ni bi mooy ay vidéom def ko tey li tax sénégalais yu bari xemmem ko am ci moom cofeel gu rëy mu mel ni doonte moom am na ay idée am na ay xalaat waaye loolu rek doyul ngir nga percer ci jamono ji nga xam ni moom la nekk nii mais dafa am ñeneen ñoo xamante ni bii ñoo nekk ci ginnaawam doon partager ay vidéom di wane ay gis-gisam ni nga xamante ni bii noonu la xam-xam bi rafetee ba noppi wëlbatiku di ko défendre ci ñeneen ñi nga xamante ni bii tamit gisoon nañ ñi moom kat Ousmane Sonko la àndal daan ko wax wax ju ñaaw ñi nga xamante ni bi ñooy ñi ànd ak Ousmane Sonko daan ko défendre fu dara nekkut di xuloo ngir moom di wax ngir moom ñooñu nag jàppoon nañ ni bu fekkente ni bi pàpp génn na fenn rek mooy këram mooy ñi nga xamante ni bi ñoo bokkoon ak moom gis-gis waaye bi mu génnee mu am weneen yoon woo xam ne tànn na ko bu wuuteeg ñi nga xam ni ñoo doon partager ay vidéom fa ñu jàppoon ni fii la féete loolu nag day indi problème parce que ñoom dañuy jàpp ni ñoo la defar ba fi nga yegg si nga yegg si fa kon waroo doxalee neneen nu dul bu fekkente ni yaa ngi dugg si ci làng gi am nga sa kër ba pare parce que loolu mooy li nga xamante ni bii ñoom noonu lañ ko gisee par contre nag ci biir gisin boobu d'accord am na nit ñoo xam ne mën nañ gisee noonu mais fan yi dama dégg am ñu yëkkati ay kàddu daal ne Pape Djibril Fall na bàyyi li muy def di sol ay xaftaan di sol ay yére baylaat di wane ab sëriñ di mbàkke mbàkkelu na bàyyi li muy def te sol peew wala mu sol ay basketam wala mu sol ay kiiwam dugg ci terrain bi mu mel ni léegi dañu bëgg a wekk mbir yi ci wàllu col ko Pape Djibril Fall bu ko neexee sol caayaam li am solo du caaya ji wala jamput bi mbir mi du foofu c'est mën nga wax nit ki lu ne d'accord ci ñenn ñi nga xamante ni bi mere nañ ko c'est parce que dañu jàppoon ni ñooñu dañu jàpp ni victime lañ parce que dañu jàpp ni Pape Djibril Fall daf leen a utiliser ba yéeg doxalee neneen nu bokkut ak ni mu daan doxalee loolu mën naa d'accord ci ay idée mais nag bu leen ko jéem a jam tamit ci côté solo nit ki am na sañ-sañu solo lu ko neex ndax Pape Djibril Fall mi ngi ci yittey sénégalais yi ci foofu lañ war a ñëw ndax li tax sénégalais yi dugal ko assemblée nationale ndax sénégalais yi ñu ngi gis retour que ni Pape mi mi ngi liggéey wala liggéeyul foofu la ñu war a wax ak moom si toutefois que ni ñu gis ni ña ko voteel yëg ni. voteel nañ ko de waaye li taxoon ñu voteel ko gisatuñ ko ci moom loolu laa bu boobaa euh, dana am solo mais bu ñu yóbbu mbir yi ci na bàyyi ni muy solo wala na bàyyi li muy mel ak ni muy kii loo foofu defe naa ne bu ñu fa duggee débat bi day nekk débat boo xamante ni bii euh, day féete suuf ba mu ëpp Pape Djibril Fall sénégalais yi pour te diir que ni amoon nañ ci yow yaakaar gu rëy rëy nit ñi. respecté woon nañ la lool lool fonkoon nañ la tegoon nañ la foo xamante ni bii teguñu fa sénégalais yu bari man damay jàpp ni euh, du yeex mukk ngir nga xoolaat say doxalin man jàpp naa ni depuis quelque temps am na noo xamante ni bii su fekkoonte ni jege naa la di la conseiller dinaa la wax ne la génnoo ci xolu sénégalais yu bari peut-être ñenn ñi mer nañ am na loo xam ni meree nañ la ko peut-être ñooñu dañu comprendre je pense que ni war nga gën a mën a taxaw expliquer leen indil leen ay gindi ci sa position yi nga xamante ni moom nga amee parce que tey jii am na koo xam ni dafa jàpp ni dafa laa liggéeyal lu rëy pour nit ñi xam la am na ñoo xam ne dañoo taxaw fu ne xeex jàpp ni xeexal nañ la ñooñu nag dañuy jàpp ni ñoom bu ñu gisee nga doxalee neneen dañuy jàpp ni war nga leen doon te nag sa gis-gis am nga ko ak sa beneen xalaat mais en tout cas loolu mooy li nga xamante ni bii sénégalais yu bari dañu yëg ni da nga doon daw ci essence su jàmbur léegi nag daw ba nga doon daw ci essence su jàmbur am na noo xam ni boo ko doxalee moo tax ñooñu nga xam ni bii tey ñoo taxoon nga daan dem retiré wu loolu bokk na ci li nga xamante ni bii. Euh, jàpp naa ni sonal na la ci wàllu politique ci jamono bi ñu nekk ni kantaa nag mbirum colkook yooyu vraiment nekkul loo xamante ni bi lu am solo la